donc Guédiawaye info toujours ñu ngi fii son euh, show libido ak beau sacré donc ñu taxaw ak toujours koo xam ne mu ngi bokk si membre yi donc soxna si yow euh, tey lan moo waral sa teewaay fii ak lu tax nga bokk si safu beau sacré. waa teewaay bi fii tey mooy pour bégal bépp Guédiawaye bépp jeune bu dëkk Guédiawaye euh, bépp jeune boo xam day dund rap macha allah bu nekk na jeune boo xam ne bu gëm lu muy def. Euh, respecté nit jox nit cër euh, euh, lépp loo xam ne daal luy dox jëmal réew bi kanam daal bëgg na ci dox macha allah daal buuba waaw tey lan ngay wax ci organisation bi comme que yow ci organisation bi nga bokk par rapport ak gis nañ show bi nu muy démarré ak nu muy ak muy doxee donc lan nga ci wax ci organisation ah xawoon na métti moom na li lu mel ni yombul wax dëgg fa yàlla mais tamit rek yàlla may nañu daal ñu ko ñu góorgóorlu baax ak mobilisation bu baax tamit rek ak xëy na euh, yéeg nit ñi respecté nit ñee tax nit ñuy def lii na wax dëgg fa yaa buuba ku ko ñëw war ko ñëw macha allah. salaamaaleykum donc toujours Guédiawaye info ñu ngi fii Libido show boo sacré donc ñu nekk fekk benn soxna boo xam ne comme niñ koy defee mu ngi si staffam bi donc ñoom ñu organiser li donc so soxna si mën nañ xam lu waraloon tey sa teewaay ak lu tax nga nangoo def sa lépp tey si organisation beau sacré bi. Bon, tout d'abord, bonsoir. Je me présente. Je me nomme euh, Chacha Dramé. Euh, manager marketing. Tout d'abord, je me présente. Je me nomme Chacha Dramé, manager marketing Boussa Bon, voilà. Aujourd'hui, on est là pour euh, jàppale bu bouts sacrés parce que suñu xeer la voilà voilà. dañoo ñëw ci concert bi pour faire du lourd waaw merci. waaw tey lan ngay wax ni ni ni ni si album bi beau beau sacré génne le vidéo. bon je peux dire que RAS rien à dire macha allah waaw macha allah ñëpp apprécié nañ ko waaw c' est on est là Guédiawaye ah, info MD Free fi nekk donc MD Free mën nañ xam lan mooy sa teewaay si si si concert wu Beau Sacré bi lan mooy sa teewaay. yeah what's up xam nga bu uh, ne suñu waay la ñu ñëpp xam nga nekk nigga bu cool macha allah xam nga ñu ne uh, lañ ñëw def teewaay xam nga ànd ak si waa koñ yi xam nga nekk affaire bu naaj boo rafetlu nañ ko quoi parce que li mu def dafa rafet quoi xam nga maanaam organisation woo ñu la jege ñëpp ne leen gars yi jàpp si affaire yi xam nga tu vois en fait mooy loolu quoi rafetlu nañ ko aussi. waaw lan ngay wax album bi génn tey ban conseil ngay jox gars yi pour ñu dem xoole album waaw en fait xam nga album bi lu ma mën a wax waaw comme par rapport ak képp ku ko déggul pour man ah, yaa ngi yaa ngi raté lu yaa lu neex aussi pour man ma ko déglu mais vrai rap laa dégg tu vois en fait comme li lay wax sama gars yi nañ ko jëm dem uti xam nga mooy loolu yaa gën a xam album bu neex la ay titre neex moom su neex ma gis na quoi c'est am na ay am na lépp macha

def ci ci album Libido bi. en fait euh, tout d'abord dama lay nuyu donc euh, di nuyu say internet, di nuyu waa way donc euh, tay ñu ngi fi ci J Pop di célébrer Libido show première partie. donc suñu relation ak bu romb na relation artiste ak nit dafa dem ba nek relation mag ak rakk relation nit ak nit. parce que bu c'est un boo xam ne depuis bi groupe bi di nekk groupe bi ñuy nekk ay ñaari membre ñetti membre projet yëpp Diéguy moo koy job donc en certain moment mu dem ba commencé carrière soloom ñun ñu gis ne bëgg na ko te gëm na ko te am na talent bi ñun ñu jàpp ci boobu léegi ñu jàpp ci di buux di buux di buux ba projet bi génn ba tey ñu nekk ci show alhamdulilah c'est gos gosse qu'on respecte beaucoup c'est un gosse qui a un énorme boo xam ne mu ngi ci moom di nelaw donc li ñu gars gis nii ca libido bi juste début li muy job jégraay actuellement pour son album moo gën a yéeg lii donc ñu ñaan bi waa géej waaye ñëpp jàpp ci am nañ artiste tey boo xam ne day def lépp day way day rap trap noonu classique noonu kon donc sant yàlla ñun am nañ njort gu rafet ci subam ne fii ak ay ñaari at dina bokk ci ñuy téye hip hop bi waaw tey Al Amine ñëw nga fi gis nga concert fi Fason, fason, nit bwou nèk a tou aj gis nou kofi. Kèst sa te fe, yo mè nèk khamle dan anèk chil label, ak euh, gis bou nyou organize li, nyou gis fi nyop te ou. Nin nyop poutaz te ou fi, payèk mèri, nyop te ou. Nan mè, bet mè chi bou, paski, nit bwou amè respè, bwou amè respè, bwou amè respè, bwou amè respè, amè dinè. mën rap am public derrière lui loolu moo waral tey nga gis fi aas bu nekk nga gis fi xale gis fi mag gis fi ay bàjjen gis fi ñu dagg seeni nelaw gis fi lépp donc sant yàlla la quoi kooku dañuy am njort gu rafet ci ci ci parce que tey bu du bu xale yi du bu mag yi le Sénégal la bu Géejawaay la bu Mbaaw la Ginnaaw la en personne. waaw sa last donc lan ngay wax public bi nga xam ne découvrir album Libido mais nañ ko dem jënd ji. dañ ko dem jënd ji mu ngi ci plateforme yi nga xamné ne am nañ ko localement muy sénégalais yi mu ngi fi en plus disponible na sur CD ku ko bëgg bo duggé page bu muy facebook muy instagram di nga am ay contact mën nga ko dem jënd ji wala nga ñëw fi ji pop wala djéj ray dang koy am donc euh, ma lay remercier di remercier wa géej waa wax né xam nga mu ngi nice mu ngi waaw merci Al Amine donc ñu nekkoon fekk Al Amine moom mu teewal fi waa Jéggi Raay donc si concert boobu Libido show bi Guédiawaye info